ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dool dinoo ay maqaam yàllaaw auzubillahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad nabilu mi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima auzubillah bisimilah inna waliyallah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk internet yi nga xam ne yéenay suivre seen jotaayu xam-xam bi nga xam ne mooy faj sa jàngoro itam ñu dellu siwaat fii fi nga xam ne nee naa dootuñu ko présenté ndax kenn ku ne xamoon na suñu jotaay yi nga xamante ne jotaayu xam-xam la daan doon ñu daan ko amal ak ki nga xamante ni mooy suñu jigéen suñu xarit di soxna Kya Aidara Mboup ñu dellu siwaat fii tey ci këram fekkaat fi rakam ji nga xam ne wax dëgg yàlla moo ko uutu ci liggéey bi uutu seen waajur wu góor ci liggéey bi waaye itam uutu seen waajur wu jigéen ci liggéey bi boole lépp téye ko muy sëñ Maysa boobu waaye bala ñoo def dara rek ma bëggoon ñu def benn une minute de silence déjee ko à la mémoire de soxna Kya Aïdara Mboup macha allah rabbi kon bisimilah. macha allah jërëjëf di ñaan rek moom itam wax dëgg yàlla sunu jigéen boobu sunu xarit boobu macha allah foofee mu tëdd yal na sama borom eh, yaatal yërmande ci kawam waaye yokk ay leeram waaye itam macha allah taas ñu ci ay barkeem ndax nit la woon koo xam ne ku baax ku bëri yërmande koo xamante ni tam wax dëgg yàlla eh, macha allah rabbi eh, ku ko xam ku ne xamoon na ni wax dëgg yàlla nitu kese la woon waaye nit la koo xam ne ku fonkon doomu aadama. nit la koo xam ne ku amoon sutur la nit la koo xamante ni tam ku bëri woon li muy taxawu doomu aadama yi la macha allah kon yell na tey buñ dellu si waatee ci biir këram ñu ñu fàttalikuwaat ko waaye defal ko benn une minute de silence jagleel ko ko ñaanal ko yàlla sama borom yërëm ko taxaare ko ci àjjana ya moom ak waajuram bu góor ba nga xam ne fekk jëna ko fa macha allah suñu papa Sidi su ko defee rek dañuy daal di njëkkanteeg waxtu wi daal di nuyu nga xamante ne tey moom lañ fekk si muy Serigne Maysa Mbuub di rakk ci soxna Kya Aidara Mboup ñoom ñaan ñu mbokk ndey ak bàyyi gisoon ngeen ko ci suñu jotaay ba lay weesu ak déclaration bi nga xam ne gis-gis la woon ci mu defoon ko fi tey nag ñu ñëw seet si waat ko pour bëgg a wéccantuwaat nag moom lenn ci xam-xam nga xam ne suñu borom jagleel na ko ko ak fi réew mi toll ci tolluwaayam muy élection yi nga xam ne mal nañ ko gannaaw bi nga xam ne génn nañ ci atum atum 2021 dugg si ci atum 2022 ñaan yàlla at mi tam yàlla na yàlla sama borom ko mu atum barke def ko atum xéwal def ko atum tawféex def ko atum jàmm waaye def ko tam atum mucc may sa ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay jaar mboolem internautes yi ils sont en train de t'écouter et de te regarder. ok. Papa Talla si tu vu j'ai fait une minute de silence pour montrer que ma grande sœur elle n'est pas là aujourd'hui mais elle est là. Je remercie Dieu. Que Dieu me donne longue vie je vais toujours aller voir ma grand-sœur et mon père. Dans la vie, quand ils vivent, un jour viendra, tu vas mourir. Avant tout cela, je vais saluer toute la famille du Mali. Les femmes et les enfants souffrent pour faute de nourriture et aucune commodité de vie. Nous regrettons d'avoir passé une nuit blanche à Kidira à cause des autorités sénégalaises par la confection de nos pièces d'identité. Sans aucune raison logique, toute action contraire à notre demande serait préjudiciable. Encore une fois, nous demandons votre indulgence et votre bonne compréhension de l'espoir de la Teranga sénégalaise. pour une solution idoine faite. Vive l'unité africaine, vive le Mali. On veut rentrer chez nous. Mali, on a une vidéo partagée. On est là, Chiorotambolo, Sosobampa. mɔgɔw tɛ sɔn den b'an bolo den fitini de bɛ ne yɛrɛ bolo an n'an denw de don ko kɛra togo togo a gɛlɛya la togo togo a y'an to ka segin an faso la a sira d'a ma an ka segin Kasim Goyita bɔ i ka ko kɛ an ka segin an faso la an ka bɔ yan an so tɛ an ni wɛrɛ tɛ. ayi an tɛ Asimu bolo yan dɛ an bɛ min bolo yan dɛ o ye jamana. a ka bɔ an ka jamana kɔnɔdenw ka bila u ka don ka jamana kɔnɔ an ka perezan jigi bi ka bɔ. bolo yan u ka an ka pièces ta an Aujourd'hui, ça chauffe, mais ça va refroidir. C'est pour cela que j'ai mis pour te montrer un côté malien, un côté sénégalais. Un côté malien, un côté sénégalais. je suis né au Sénégal, je suis grandi au Mali. À part tout je suis un Africain. Pabatala, Mali, <laughs> ça va histoire. Tous les pays, ils vont faire copie comme un Mali. Tout Africain, ils vont faire ce que Mali a fait. Inch'Allah Rabbi. Papa Tala, on dit, quand tu vois un feu qui est il faut savoir que Dieu va amener solution pour éteindre ça. Mais je me profite là pour saluer Macky Je sais là où il aujourd'hui, ça touche, mais il peut pas faire quelque chose. Parce que c'est une attente. Si tu n'es pas fait pour toi. Sinon, Magistal même, il sait. Wallahi billahi talahi, ça lui fait mal Mais il ne sait pas quoi faire. Je vais dire à Macky Sall, n'a qu'à soutenir Maria. Wallahi. Mon vidéo là, je veux que ça n'aille jusqu'à chez Macky Il faut du Macky Sall. Je suis son fils, je suis son petit-fils. Je l'aime trop. Il n'a qu'à penser au Mali. Papatala, wallahi billahi, ce que les Maliens sont fait année passée là, je te le jure, n'importe qui qui rentre entre Mali et une autre personne, Dieu va te neutraliser. C'est moi qui t'a dit. Ça fait un. J'ai salé tous me profite, je vais parler en bambara parce qu'il y a les depuis je suis venu au Sénégal, j'ai oublié bambara. n bɛ min fɔ maliyɛnw ye n b'aw bɛɛ lajɛlen fo mali ye jamana ye jamana min ni tinɛgɛ se ka k'a mali ye jamana ye jamana mun n'a tɛ se ka nɛgɛ ka buye to yen ka ayidara to yen ka sɛkuma faruku to yen ka karamɔgɔbaw to yen ka gindo alimamuw to yen walahi mali bɛ bɔ ni dingɛ kɔnɔ n'i ye ko gɛlɛyatɔ ye a nɔgɔyatɔ de don maliyɛnw ye danga min don walahi a danga bɛ n'a latɛmɛ maliyɛnw bɛ fan o fan i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bil'i kunna k'i ye maliden de an bɛɛ ka hakili to an yɛrɛ jamana wɛrɛw la an bɛɛ ka hakili to an yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ an kana perese an kana giringirin an ka jɛ ka di masa aramani ma ala ye saya da ka nin da ka balo da ni ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ n bɛ fo n bɛ ba fo n'o ye ana ye ka tila ka n fo n'o ye tɔnɔ bura ye ka kirina fa b'o saba fo ko ne ko ni ce u ni baraji k'alisa k'u ka dɔ fara duwawu a bɛ ɲa je parle en bambara je vais parler un peu en wolof papa ta la maa ngi ñaani yàlla problème yi su dafa nekk Mali yàlla def indi ndox pour faj ko Papa Mali dig bu baax la parce que lu tax waa français nee na ñu def élection benn dëkk ñoom mi ngi am problème comme par exemple Sénégal mi ngi am problème Kaolack amu problème Tiwaawan mi nga am problème seenu am problème est-ce que élection mun naa def yombul le bon moo tax ay malien militaire ne ne jokk ñu temps ñu stabiliser sunu pays ba pare si ñu stabiliser élection am benn problème mais man xam na yàlla dina génne Mali ci affaire bi Papa Talla ñaani gars yi dafa def année passée billahi tallahi Papa Talla ñaa ñaan bi musu ko def amul benn président ñaan bi su gars yi dafa ko def noonu amul amul ay coutume dafa def ñaan ay sëriñ dafa def seeni ñaan ay féticheur dafa def seeni ñaan lu ne war na def ci àdduna te lu def la sa ñaan am na ay nit ñoom dafa dem ci àll bi ñoom dafa def trois semaine xalwa foofu ñaan rek musu ko def am na ay yeneen tam ñoom dafa dem ci montagne dem foofu ay ñaan am na ay ñeneen tam ñoom dafa nekk seen këri ñaan billahi taala ñaan bi du daan man maa la wax lool. xam Papa Talla même ay xale yi tuuti su dafa xam dara kenn ku ne ñaan na musu def non sana n'a jamais arrivé au Mali ça c'est la première fois maa ngi ñaan Macky Sall xool ginnaaw tuuti Sénégal Mali benn la Sénégal Côte d'Ivoire benn la Sénégal Guinée benn la maa ngi ñaan Macky Sall dama bëgg sama vidéo dem ci makisal nga wax ko doomam moo wax ni su fekkee ne mun na dem ci moom billaay taala ma sol sama dala dem ci moom ma wax sama maam xol ginnaaw Papa Talla si affaire Mali bi dafa jeex pays ku ne da nga xam si seen turu mi ngi ci affaire bi billaay tallaashi man maa la wax su deful subu yàlla dina ma laaj man maa la wax kenn ku nga am problème sa dëkk man maa la wax loolu kenn ku ne nga am problème sa dëkk et puis kenn ku ne sa fetal su daan Mali billaay tallaay sa dëkk dina taal patala man maa ngi protéger Sénégal bon moo tax dama génne tey wax mak sal parce que sama deret moo nekk fii sama pap fii laa dëkk sama maam fii laa dëkk sama rakk fii laa dëkk donc du ma bay Sénégal dina am problème ci sama kanam lu ma mënu wax dina ko wax en tant que xale ak respect ça fait deuxièmement Papa Talla dama la wax sànq maanaam entre les vingt les quinze maanaam dina ma ay dee lu bare mane dina ma accident lu bare et puis dango ma bi su mi ngi ñëw ne meeting bi kenn ku ne nga def sarax avant nga def def meeting defam ay nit yu bari dafa ma jox information nee na même jour passé dafa may xeex dafa may xulo man maa la wax élection bi kenn ku ne moytul sa bakkan dina dugg ci biir maa ngi wax yow papatala foo jëm su ma la jox lu ne yàlla moo ma génne moo ma génne xam si comprendre donc nga moytu sa bopp soo gis ñaari nit mi xeex sol sa dala nga dem soo gis benn accident dafay def fee bul dem xool sunu yu nga nekk deuxième wax naa la de est-ce que yaa soo bugg dem voter dem sa vote nga ñëw sa kër soo bugg def élection campagne def sa campagne nga ñëw sa kër bugg ci dugg ci lii bugg lu ci wax na la élection bi avant dina campagne bi dina tëj du vendredi dina tëj déedéet campagne bi dina tëj kañ le avant campagne waaw avant campagne bi tëj ah billahi kenn ku ne moytu su amul dee 14 man maa la wax nga bindi est-ce que su amul dee su tuuti tuuti 14 personnes kenn ku ne nga moytu Papa Talla 2022 bi kenn ku ne nga moytu ak sa jëkkër waaw kenn ku ne nga moytu ak sa góor góor tam nga moytu ak sa jigéen Papa Talla 2022 bi sey bi dina sëy pour tase dina bare de ma la wax nga bindi teg avant mois nga dem ci tribunal ah bu pour tas su motu sa soo ñëw ci man man duma seet encore est-ce que comprendre dama bëgg wax nit ku ne nga moytu ci sa sëy su dafa am coow muyul su dafa am xuloo muyul mille vingt mooy yombul mu yombul dama déggu benn émission benn waa ji ne ne si terrain bi dafa commencé dina ma ay nit lu bare xam ma turu waa yaakaar na benn sëriñ la li mu wax dëgg la de Papa Talla li mu wax xam ma bi mais dëgg la de parce que waa sénégalais dafa fàtte benn affaire Papa Talla coutume il faut pas seen coutume wax na passé année passée wax na ko te itam maa ngi wax encore il faut pas que ñoom dina fàtte seen coutume Papa Talla coutume dafa am solo même si te soo xam ku ku toog fi premier premièrement nga laaj ko ban sarak moom dafa def avant si te dina nekk dina la wax géejewaay même chose fu ne nga toog defam ay sarak yu da nga génne. ku toog foofu premier premier premièrement dafa am ay sarak ñoom dafa génn avant avant Sénégal dina nekk senegal dafa am ay sarak ay maamu dafa génne bapare pare avant toog il faut pas que sénégalais fàtte seen bi Papa si sénégalais yi dafa fàtte seen coutume bi loolu dina nekk sénégalais dina soono su président génnew ko sénégalais si yéen dafa xam génne. man ci boppam man xam ma kutum fii su ma ko xam billaay duma xaar kenn dama bëgg même wuti autorisation su fu ne ma dem mun na liggéey parce que soo miinu al eh, jàmbur doo dem nii liggéey loolu yombul su ma amul autorisation lu ma mën su ma def si sama dëkk dina ko defaral

pays yëpp dina yëgal <laughs> man maa la wax six mois yëpp dina yëngal kenn ku si yaa tabak tabax sa kër année passée soo moytu année bi nga nga jaay ko hmm? ah yàlla moo dogal lool pawatala sëriñ du yàlla même yow ci boppam yow séeréer la micro bi yaa jot yaa ngi def sa liggéey soo ma jox mënu maa ko def kenn ku ne sax sérin na kenn ku ne yàlla may la xam-xam mais doo nekk yàlla. est-ce que Papa Talla dëkk yëpp dina yëngal dinam ay problème saafara dina am ay problème eh, eh, comment on appelle accident dina am ay problème dee ay mag yi kenn ku ne si danga nga am sa yaay ak sa pap ah, nga wutu seen barka année bi de pay lu bare dina dem de billahi taala papa taala ngi la wax kenn ku ne da yore sa yaay ak sa ak sa maam wutul ñaan avant ñoom dina dem nga jékki-jékki rek kii dafa pare rek julli rek dafa dee ou bien kii dafa jóge ci marché rek defa dee année bi nga dégg ay paa defa dafa dee même xale yi dina dee mais paa yi moo gën a bare est-ce que yaa ngi comprendre ma ay feebar mi ngi ñëw feebar mi dina ñëw guddi nga jékki-jékki rek nga fekk sa bopp mi ngi la met ou bien nga jékki-jékki doo amee respiration bu baax si yaa ngi comprendre avant nga dem ci hôpital dem yàq sa xaalis nga wut xorom poole lu bare nga wutu laurier lu bare nga wutu lay tuuti rek ak miel ak jam-jam nga def yëpp ci biir nga baxal ko bu baax ak citron set citron nga sangu nga naan même ay grippe ñoom dafa amu ni sa guddi avant nga nelaw nga jël benn karité nga def ko ci sa ñaar bakkan nga jël tuuti rek nga def ko ci dof ta nga sangu sa crépi yëpp dina bàyyi est-ce que comprendre lu ma bëgg wax waa sénégalais mooy ñoom dina moytu seen bopp ci année bi bu bees bi. daaw daaw sa mag waaw moo eh, ñun suñu gis-gis soo bugg set at ñun set na ko ba pare li ma la wax année passée boobu moo nekk ba léegi parce que soo gis sëriñ dafa def wax at par exemple soo da da nga am sans boobu moo nekk sa at nga wut sa at ci biir est-ce que yaa ngi comprendre ou bien avant carême seen yenn seeni liggéey nga wutu at boobu ci biir est-ce que parce que at du wutu ñaar yoon lu ma la wax 2022 loolu moo ñëw léegi 2021 ba léegi boobu mi na dem ba 2022 est-ce que yaa ngi comprendre année bi à partir de 6 mois nit yi dinaa sonn waaw yàlla mun na dimbale nitre rek mais à partir de six mois nit yi dinaa sonn à partir de six mois dëkk yëpp dinaa yëngal kenn ku ne nga moytu sa bopp kenn ku ne nga xool sa doom kon ku ne nga xool sa jabar kenn ku ne nga xool sa jëkkër i faut pas dina am xulo il faut pas dina am dara sinon ay deret dina bare waaw lu ma bëgg wax comme conseil boobu moo nekk nii. Meissa Mboup kon nag day mel ni mbokk internet yi nga xam ne yéenay suivre Salam Vision dégg ngeen may sa Mboup di rekk ci soxna Kya Aidara Mboup li nga xamante ni wax na ko te loola itam defe naa ni gis-gis la ak loo xamante ni daf ko gëstu xool ko càmbar ko jàngat ko ba génne ci ay résultat dooroo woote ne dafa bëgg a wax te li mu wax it defe naa ni leer na tàmbalee ko ci Mali ga nga xam ne fa la dëkk. ñuy suñuy suñu suñu suñu suñu suñu frontière ak ñoom ñuy suñuy doomi ndey macha allah bi coono gi nga xam ne ñu ngi koy dund nattu bi ñu xam ne ñu ngi koy dund dégg ngeen lim ci wax nee na képp koo xam ne jël na sa balu fetal wala nga jël sot te sotle woo waa Mali yow mi sot sa dëkk dana tàkk benn bi ci njëkk. ñaareel bi mu wax ki nga xam ne mooy suñu njiitam réew mi di président son excellence Macky Sall ne na jóg bàyyiwaat xel askanu Mali te xam ne ay doomu ndeyam lañ. ay doomam a fa ne ak njabootam ñoo fa ne kon na leen bàyyiwaat xel te dem taxawu ji leen te jàppale ji te loolu jàpp naa ni war na ci ku ne kon loolu itam def naa ni lu leer la kon le président son excellence message boobu ñi ngi ñaan mboolem ndaw ñi képp ko la jege te seetaan vidéo bi na fexe ba nga dégg wax ji te fexe noo taxawoo suñu mbokk malien yooyu ndax kat ittewoo nañ sa taxawaay foofu ci dëkk ba ñaareel bi tamit ñi ngi dëgmal ay élection coow li bëri na lool barki Dembo Ndiaye dégg ngeen ko li mu wax Medina fii toj na lool ci xeex boo xamante ni wax dëgg yàlla ñoo ko fa doon defit macha allah te jamono boobaak léegi ñu ngi gis ni fenn fu ne ci dëkk bi coow li bëri na xeexoo xiroo yeeg ŋaayoo yeeg sànnante xeer barki Dembo Ndiaye fii ci cité ci ci Guédiawaye euh, le maire de Guédiawaye ak waa kër waa kër waa kër waa kër euh, Ahmed Aïdara yi coow lu metti lañ fi def donc mu doon yoo xamante ni wax dëgg yàlla lii muy wax itam loo ko ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk bañ a gëm te xool lii xew di nga mën a nangu loolu te joxe na ci anecdote joxe ci ay tegtal waaye joxe ci tamit date maanaam limite boo xamante ne nañ fii foofa lu waaye di profité nañ ko ci profité ndax bu waxtu woo jotee defe naa ni lay xew moom bu xewee ñëpp koy bokk yëgandoo mais sax li ma bëgg laaj dëgg-dëgg mooy est-ce que tey mbooleem li nga gis nii yëpp parce que waxoon nga fi na na président la république seet ñi nga xamante ni ñoo ñoo ŋànk cosaan ak aada ci réew mi ñu dem su mbéjun ñu am saraxu nag yu ñu def est-ce que sarax boobu ne ba tey ji moom mooy continuer bu moom bu mu a def mais pour population bi bu fekkee président def ko population bi ñoom ban sarax lañ mën a def pour ñu mën a mucc ci problème yi war a xew waaw population yi kenn ku ne sa famille su fekkee ne da nga am xaalis nga wutu xar bu weex taal benn xar bu weex taal si yaa ngi comprendre ak eh, baxane góor nga wutu boobu set ak eh, da xam voilà ak eh, jigéen yi eh, yére bi su ñoom dafa am buur seen bopp kol bi nga wutu bopp tam set est-ce que nga ñaan ci kaw nga jog ko benn imam ou bien benn talibe su dafa mu jàng foofu comme benn mosquée su dafa am ay talibe yu bare nga dem jog ko foofu yàlla dina dimbali nga génne ci affaire bi su fekkee amu xaar xaar nga wutu ñaar ginaar bu weex si yaa ngi comprendre mais ñaar ginaar bu weex jigéen waaw si yaa ngi comprendre nga teg su fekkee ne jigéen na nga wutu set eh, kol nga teg ko ci kaw nga ñaan nga dem jokkoo benn imam so amu imam nga jokkoo benn jàngkati taal bi si yaa ngi comprendre al jàng al quran si yaa ngi papa tala même ay sëriñ ay sëriñ ku ne foo danga nga nekk Mali da nga nekk France da nga nekk Italie séeréer ku ne su fekkee ne da nga moyen nga jënd beneen nat bu weex taal waaw nga ñaan ci kaw nga jox ko benn séeréer si yaa comprendre su fekkee ne amul xaalis pour jënd natt jënd xaar bu weex taal su fekkee ne yow serin góor la jënd xaar bu weex taal nga jënd eh, baxane set baxane bu weex taal. nga ñaan ko nga jox ko ay eh, ku jàng taalibe nga jox ko ñoom su fekkee ne amu boobu tam nga jëne ginaar ñaar ginaar bu weex taal nga teg baxana ci kaw nga jox ko sëriñ si yaa ngi ku def lool ci kàttum yàlla yàlla dina la rëcc ci problème bi est-ce que yaa ngi su fekkee ne Macky Sall dafa dégg sama vocal ku xam wure yërëm eh, eh, bi ku xam dëkk bi dina wutu naat bu weex waaw bu weex set xaar bu weex set ginaar bu weex set ak eh, beneen natt bi boobu tam bu weex set dina wutu ku xam réew bi ñu jokko ñoom ñu dem ñaan ci àll bi su fekkee ne mënul boobu tam ñu wuti imam imaam yi yëpp dinaa boole dem jàng ci àll bi rey eh, xare bi rey nati bi séddale ko ay xale séddale ko ay nit Papa Talla su ñoom dafa Macky Sall dafa def lool même su nekku président moom dina génne ci bunt bu rafet élection bi hmm. kenn ku ne yaa ngi ci biir moytu kenn ku ne kanida nga nekk candidat moytu Papa ñoom dina moytu de Papa Talla lu bare dina bàyyi seen bakkan du senegal kese de àdduna di bi yëpp président lu bare seen bakkan dina bay bon moo tax ma ne kenn ku ne yaay mi ngi sa wet sa pap mi ngi sa wet sa mam mi ngi wet <laughs> yokkoli ñaan soo deful nga ñàkk de nga ñàkk de lu ma bëgg wax lool mooy waaw jërëjëf alaaji Maysa Mboup ci leeral bu am solo boobu waaye tam ci détermination wu li nga xam ne yaa ngi ko gis te di ko wax te nëbbatu woo ci waaye man li ma ci gën a itteel mooy euh, son excellence monsieur Macky Sall nu ngi koy ñaan mu wax la gouverneur wala le préfet Dakar ñu may la autorisation ngir nga mën a dugg ci biir àll bi dugg ci biir mbeex mi mën a liggéey liggéey bi nga xam ne askanu Sénégal nga koy defaral ndax liggéey yi nga fa fas yéene def yëpp yéene bi nga ci am mooy sauver Sénégal gi nga xam ne yaa ngi fi ne ndax waxoon nga ko ci suñu jotaay bee passé nga ne bu fekkente ne yaa ngi ci biir gaal gi gaal gi war a lab boo sauver sa sauver gaal gi moo gën a wóor nga sauver sa bopp réew kese kon yow li ngay wax ni sauver woo sa bopp waaye Sénégal en particulier nga bëgg a taxawu kon yàlla na yàlla fexe ba message bi yegg ci son excellence bu ko déggee itam yàlla na ci def ay jéego ba nga am autorisation boobu ndax ku dégg li ngay wax xam ne détermination ngay waxee ku ko dégg itam xam ne xool ngay waxee macha allah rabbi te yàlla mën na cee def na ko yàlla motali incha fan yi ma gis la nga dem Tiwaawan dem seeti sa mag ju baax ji dem siyaare ji waaye tamit Papa Sidi ban yëg-yëg nga am bi nga demee foofu noonu. Papa Talla soo seetaanee vidéo bi nga gis ko loolu laa dem ma wax si say waaju yi dafa dee bu balaa nga commencé wutu ay barka si sa pap dafa dee. bu ba nga commencé wut ay barka tànk mi ngi dund yow commencé wu dara yow deful dara lune ne def c'est zéro mooma da nga moom ñoom dafa dee bu ba nga commencé wut seen barka ba yu tam nga dee sa doom tam dina la fay soo gisitee maa ngi Sénégal ngir sama papa ngir kiya même su xëy na yu da ma jox milliard nga ne mais sax yu dinañu toog fii benn jour man dina la wax du dëgg ak sama xam-xam yëpp déedéet du ma waaw du ma ko même wax waaw est-ce yaa ngi comprendre mais soo gis sama yaay ak sama maam yi ne ne ma ñëw fii bon dama ñëw comment ça veut dire man dina nekk fii sama pap mi ngi fii sama mag mi ngi fii duma dem seeti ñin su dem seet ma ñëw ma liggéey ma ngi def yàlla du ma jox dara ci biir Papa Talla soo gis ma ngi dem ci armée nga bay ci sa xel demam beneen liggéey dafa ma jaaxal dama dem laaj sama paap ak sama mag seeni ñaan Papa Talla yàlla ne ne ku dee su fekkee ne ku baax la so soo xalaati benn affaire yo amoo ko demal laaj sa waaju même su ñoom dafa dee nga wax su fekkee ne sama baab man defuma la dara ba de nga dee su fekkee la boobu dégg la yow yaa ngi tëdd tee maa ngi ñaan yàlla yàlla may la nga may ma. Papa avant nga yegg sa kër boobu <laughs> yàlla pare na waaw boo moo tax su ma jaaxal benn affaire rek ma ngi dem ci wawan nuy sama pap nuy sama mag. parce que yàlla ne ne seen nit ku dee yaa ngi dem ci set ko depuis yaa ngi ci bunt yaa ngi ci oto yàlla dina yeewu ñoom yëpp e yéen jógul sa doom mi ngi ci yoon fii ñëw ñoom dina kontaan ku nekk ci wetem moom dina jooy depuis man dama dee su ma tëddee fii kenn ñëw seet ma boobu moo tax soo dem ci armeri soo dem ñaan si sa waajur bul fàtte ñeneen ku nekk seen côté soo def ñaar pour ñoom yëpp yàlla dina jokk ñoom tam bon moo tax tout temps maa ngi dem Tivaouane chaque vendredi même su yàlla deful dara suba tam maa ngi dem foofu waaw pour ñaan. mu doon lu am solo parce que vraiment man sama yaram sax a ngi daw fi mu wax dëgg yàlla ndax gëj naa fa keroog bi ma yóbboo sa mag ji wax dëgg yàlla ba duñ ci ko ci bàmmeelam ba foofu keroog laa fa gëj waaye bi ma la gisaatee keroog ci vidéo bi nga nekk foofu noonu. daf ma fàttaliwaat lu bëree bëri loo xam ne daal macha allah ñoo ñoo ngi ñaan yàlla mu oyofal suuf ci kawam. te te atte ko ci yërmandeem. te jigéen ko mbooleem dëkk-dëkkam te taas boo xam ne rek fekk jiitu ji ne ñàkk moom xëy bu fekkee jot gi may nañu ko incha allah rabbi moom doo ñu fi bàyyi moom a àndandoo ak yow su ko defee def itam benn benn jotaay incha allah rabbi mais ban wax nga ko léegi dafa mel ni kon dem ci armée li seeti waajur wala seeti ay mag barke ngay uti ji ci ñoom. waaw. kon dem ci armeel di ko siyaar ji day yokkal nit barke. waaw waaw. booba taala mhm. <laughs> xanaa yoo gisu même eh, ay sëriñ bu mag mhm. su nekk fii te ci waawaan fii mhm. soo gisi tout le temps gars yi mi ngi dem ñaan ci ñoom mais du seen pap du seen yaay mais ñoom dafa gis rek sëriñ bu mag la mhm. bon soo dem direct doo wax direct ku dee may ma bi déedéet du noon mhm. kon ki nekk ci armeel dafa soo dem ci armeel mhm. soo bugg dem ku dee pour ñaan ko du dem doo dem directement ñaan ku dee mënu def dara mais dafa may ay façon da ñëw léegi yàlla yaa jàpp sama pap tey sama pap ku baax la. maa ngi lay ñaan ñaan yëpp sama pap dafa ma def tëddi tey mi ngi dee tëddi man dama ñu ñaan pour moom moom tam ñaan ma noonu la solo doo dem man nga ne sama pap dama ñu jël ñaan du noonu. yàlla ngay ñaan mu jox pour mu jox la yow. waaw. lu <laughs> leer ngay xam ne yaa ngi comprendre <laughs> mhm. nit ku xam sa bopp. Mhm. ah mhm. même su fekkee ne. sa papa nekku ci armeri yu nga dem ci armeri rek nga fomp foofu oubien nga fobar foofu mhm. nga ñaan billahi nga nga gis benn nit dina la tontu. est ce yaa ngi comprendre. Mhm. yàlla ne ne man dina def lu ne ci ngir. Mhm. ngir yow nit yi mi ngi ma xool. ngir yow ma ngi fay ci nit. est yaa ngi comprendre voilà yàlla ne ne lu soo def ngir dina nekk ci biir nga wax yàlla ngir sama pap ci ngir dina ma may doole ngir sama mag may ma doole ngir sama yaay may ma doole doo dem de sama paap may ma doole non non yàlla may ma doole ngir sama paap man maa la wax lool tey <laughs> si est-ce que si mhm. sa mbokk yi dafa dee mhm. soo yow mënu dem foofu ci armeri mhm. jël dox rek nga ñaan yàlla maa ngi maa ngi ñaan sama pap tey ak ndox bu sedd ngir moom dama bugg nga seet sama xol sama sëy bi dafa bugg yàq sama liggéey bi dafa bugg yàq sama lii dafa bugg yàq est-ce que lu tax Kya dafa gém Serigne Babacar Sy est-ce que mosu na ko gis ah mais souvent Kya ah, su xool Serigne Babacar Sy dina woy niit ne ne kay xool Serigne Babacar Sy mi ngi wax ak man wax na ma ko ñaari yoon soo si misa yér ne ne wàccal sama Serigne dina la xool mais lu tax yàlla ne na loo gém mhm. man dina dugg barka ci biir boobu mhm. Mhm. est-ce que yaa ngi comprendre. du def dara su waxul Serigne turu baba Babacar Sy. même su bëggoon naan. Mhm. nee na ngir Serigne Babacar Sy. dafa bëgg laa jox garab nee na ngir Serigne Babacar Sy. mais musu ko gis. mais lu tax dafa wax lool yàlla defa ko def parce que dafa ko gém. Mhm. yalla ne loo gém même su fekkee du dégg loo gém rek dina la jox barka ci boobu. lu tax nit yi mi ngi ñaan ci xeer. Mhm. parce que ñoom dafa gém lool. yàlla ne loo gém. dina laa jox barka soo dee ñu jugé suñu diggante si yaa ngi comprendre ci loolu waaw amati na solo may sa mbuub macha allah rabbi ci leeral bi waaye itam ci njàngale gi ndax nee naa li muy doon doon doon doon doon gone teewul na fi ni li muy wax ni moom xam-xam lay wax macha allah te wax dëgg yàlla bëri ñoo xam ne ñu ngi dem ci ay bërëb di ñaan di ñaanlu te xamuñu naka lañ war a ñaane te leen lu ci nekk boo xoolee dafa am yoon wu mu war a jaar macha ku jëm ciw dëkk faaw nga jaar ciw yoon te jëm ci biir kër faaw a a ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàlla bisimil ilaahi ci barkeb say xi yàlla dolli noo buru yàlla dolli noo ay maqaama yàlla Bienvenue sur Salam Vision